salaamaaleykum chers internautes Dakar waa 221 di am mbégte ak contentement ci yéen ñi nga xamante ni yéen taamu seen émission bii di ndogu plus tey nag ñoo ngi fii ci Grand Yoff ñu ñëwoon fas yéene fi waxtaane benn thème bu nga xamante ni mi ngi lëmb réew mi mooy lan mooy xale yu jigéen ñi nga xamante ni weeru koor gi dañ leen di gis ñuy changé di def ay challenge di TikTok son araab yi loolu lëmb réew mi loolu tey nag ñu ne woon dañuy ñëw fii nga xamante ni moo di Grand Yoff ñu dékk askan wi fi nekk suñu micro ñu wax ñu ana lan moo ci seen xalaat non loolu mom waroon nañ ko mëna def avant weeru koor quoi parce que jigen mom normalement war nga mëna a sol yow ba ku la gis man la ñé mais ñom pa weeru koor sax mais même ci biir weeru koor gi sax da ngay gis ño xam dañuy dañuy solo melni dara xewul waaw comme niñ ko daan défé avant weeru koor ba légui da ngay gis da ngay gis kuy sol solo bo xam yow da ngay koy rus sax pour xol ko waaw dañ ko war di continuer parce que jigen mom euh lepam cëram lépp sutura la waaw waaw mais xam nga comme genre jantal mais mel ni ñun tam xam nga instant bi nii yow mën nga gis gel mu sol lu moo loo xam ne day sec da nga kontaan mais bu doon sa soxna tey yow yow ñaanoo yàlla mu sol lool yow da koy def ko pour koo xam ne sa gel la waaw mais yow sa soxna ñaanoo yàlla mu sol yooyu te booy tànn soxna tam da nga koy sa tànn ci anam yu rafet mais boo fa fekk koo xam ne day sol loo xam ne lebam day marqué xam nga nga koy jël pour soxna quand même non maa man daal maa ngi wax jigéen ñi daal nañ xam ne jigéen dafa dafa am valeur quoi dafa am valeur ñoom nañ respecté seen seen cër di nëbb lépp waaw terewul góor bu la bëgg dina ñëw takkala ci sa fula fayda waaw parce que nit moom ni mu la fekkee rek ci noonu noonu lay doxee ak yow quoi imaginel tey su ma la fekkee nga sol lu bon man fi dama lay classé ci genre nit ñu bon yi mais fekkee nga mel ni genre soxna si ni sol lu yiw man am na loo xam ne su ma ko xalaatoon ci yow sax du ma am fit pour ñëw wax la ko. ah li ci samay xalaat de mooy xam nga bu weeru koor jotee dañuy dañuy sellal voilà ñu ñu jéem a adapté wu rek continuer sellal. loolu rek laa la moo ci sama xalaat no poussé poussé wuñ leen sax mais xam nga bu bu bu bu bu bu bu bu bëgg a def lu bon faaw mu sol lu sexe pour ñu mën ko pour ñu mën ko pour pour pour pour pour ñi pour pour pour góor ñi mën ko bëgg loolu moo tax mais kenn poussé wu leen si. loolu moo tax ñu ñu ñu ñu ñu dindi sol gu yiw gi dañuy bëgg attirer góor ñi quoi xam nga xam nga bu fekkee da ngaa bëgg def lu bon faaw nga sol lu sexe pour góor ñi mën la ja fekkee dèjà xam nga boo muuroo ba ni mële gor ñuy gor ñuy góor ñi dañ lay dañ lay moytu loolu mo tax suñu seelalee ramadan ba jaalee rek ñu delu wat seen mani en tant que frère ah ñu jema ñu jema ñu jema ñu jema euh, fonk seen liggéey rek lu metti metti ñu baña a rek te baña a ben benn liggéey moo gën quoi mo gën ñuy def yoy loolu rek loolu la ah xeyna ñom ñoom seen xel foofu la toll rek na fogg na ne lu lu weer koor mom jaru ci jaru won ngay def lo non avant wer koor nga wara di def lo non parce que doomu jullit nga da nga wara di def lenn ba pare avant wer koor mais xala jigéen ñi moom xam nga sen comportement yi mom lu ñëw rek ak ñom à chaque fois mom lu ñew lu bess rek ak ñom lu ñuy def du benn sen comportement yi mom do comprendre waaw wer bi tam mo xol laaj parce que buñu nexé buñu waxé wer koor rek weeru la te wer bi nga xamantene la dañu war di sol lu baax pour nit ñi tamit di naw mais avant wer koor bi tamit fakk na doomu julli da nga war di sol lu baax comme vendredi ngay sol lu baax di rom ci mbé nit ñi gis la xamni yow mi doomu jullit nga. woor naa kay dafa tàng moo tax ma def loolu. ah yow daal dafa tàng moo tax ngay soulagé wu ni waaw nax seen bopp waaw ah, seytaan ak nax seen bopp soo muuroo weeru koor bu weeru koor jeexee nga muureeku sa bopp nga nax naxoo buur bi. non xale góor yi moom fi ñu nekkoon lañ nekk ba léegi xale jigéen ñi kay ñooy poussé xale yu góor yi ci lu bon mais xale yu góor yi poussé xale jigéen ci lu bon. waaw parce que xale jigéen ci boobu ñoom ñoo nangul muuru parce que booy muur day nekk loo xamante ne yow da koy bëgg mu nekk ci yow.

du papa du yaay du dom. kenn mënu leen téye lu leen neex la ñuy def ñoo moom seen mon euh, man moom vraiment mun ma nekk fii di juger kenn mais bon weeru ko moom ku nekk xam na lu si lu si suñu borom wax ak lu kilifa diinay wax donc ku nekk yaay xool lu la arrange après nga def ko voilà. ah man moom je suis comme ça parce que sportif la donc je suis comme ça non du loolu parce que man dama jàpp ne que genre loolu su xol la nekk maanaam jullite su xol la nekk du abima bi. ba loolu laa jàpp tamit waaye loolu c'est mais man soluma loo xam ne nii góor bu ma fekkee du ma ñàkk a voilà mi ngi noonu seen internaute Dakarois 221 gis ngeen li nga xamante ni loolu la askan yu wax ci comportement bi nga xamante ni xale yi jigéen ñi amee nañ ko ci weeru koor li ci des nag dama leen di bàyyi yéen ngeen jugeel ko seen bopp foofu laay jaaree xam naa tàggu leen ba beneen yoon ci beneen thème di leen jox digg daje semaine prochaine ngeen ànd ci ak Momar ci la Dakarois 221